kenn xamul lu mu doon waaye metti na korona musiba la moytu ko dafay faa jot na yóbbu ay junni junni doomu aadama am na ci askan bi ay doom ay doom seet leen ci yàlla seet leen ci yàlla te pose ndoxaan mi pose leen ndoxaan mi ba jàngoro ji génn ci réew mi wala yéen da dul déglu information yëgu leen lii lëmbe réew mi feebar bi nekk ci dëkk bii lëmbe réew mi président Macky Sall wax li muy wax lépp loo xumb-xumb nañ ko aj tey moytu joxonto loxo beeg akolaatante beeg jegante bi ngeen dëgër bopp rek waaye feebar bi kañ la fiy joge ah yow xanaa looy bëgg-bëgg góor ba liy xew-xew nga mën koo puus ba liy jàll loko loko dohan membo doxaan même boo ko mariage bi du mën am. mukk tànn béeroo lepp luy dajala ay doomu adama c'est interdit ndax feebar bi day bañ lolu bes bu set ministre bàyyi ngi ut ay solution Ablaye diou sar ngi ut solution Macky Sall ngi ut solution ay way doom dimbali len sen bop dimbalu ñu bu fekkee da ngeen xaru ngeen pandre sen bop ñun jàmm lañ bëgg réew mu neew doole lañ ne fagoro gën faju wa papa bu la ah! wa léegi li mom lu ci li ci pexe. waaw def ni ma def. Hmm. talal diwul raatalel say loxo ba mu tooy ñëwal raxasul bu ngeen fi jugee na ngeen dem pharmacie ut ay masque hmm. def ko ci seen i bakkeen yeeg seen i gémmiñ te toog njàng mi arrêté nañ ko mariage yi nañ ko hmm. ngént yi nañ ko ba feebar bi génn ci réew mi ñu delluwaat ca lañ nekk woon te yàlla na ko yàlla saafara ci ci ci kattanam ak yërmande. dem leen toog. dem len tok seni keur li dara yagul yalla na yàlla defal jàmm dem len yow yow da ngay ngej cem cim doxal eh bu ko message de demal demal demal ak sa yu ginnaaw gi man ne rond point kaas ba kenn xamul lu mu doon waaye metti corona musibala